rubrique du jour euh, dañ ci dalal ni ki tey ji altine gu nekk ah, moom na ñuy dalal moom Mame Birame Wathie Mame Birame Wathie Mame Birame maa lay nuyu soxna Fatou di nuyu ñu ma fekk ci plateau bi yëpp xooxaan Salma ak Mélanie di seetaan di nuyu ñi ñuy seetaan yëpp. et voilà la guerrière. oui face Mame Birame wàcc le grand journaliste le grand l'éminent comme ni ñu koy woowee chaque lundi rek Faby dañuy waxtaanee wàllum géopolitique. Euh, je pense que nag tey dañuy waxtaanee géopolitique mais lu ay di jàmbat li ma ko ni ma ko waxee tout à l'heure rek Macky Sall donc euh, on a qui se passe au Sénégal ginnaaw ba euh, le futur président par transition le président Macky Sall xam leen ni que dina reporter li nga xamante ni moo di élection yi ñu war ko jëmale ba le 15 décembre incha allah je suis très sérieuse alors Mame Birame Euh, am nag lu bëri lu nga xamante ni tukkee na ko tukkee na ci ci wàllum euh, taxawaayu CEDEAO entre autres communautés internationales mu mel ni jamono ji gisin bi nga xamante ne moom la amoon ci Sénégal fas yéene soppeeku mais euh, dañ lay bari nga dikk ci ni nga ko intitulé daal di koy bindee Macky piège la CEDEAO bëggoon nañu xam lan moo tax nga intitulé noonu ak lan moo ciy sa xalaat. waaw merci Salma. Mhm. Euh, effectivement soo seetloo depuis que euh, le président sortant. Macky Sall euh, def na discours di expliquer comme quoi que ne day dàq euh, dafa annuler élection bi nga xamante ni euh, Sénégal doon na ko préparer pour le vingt cinq février loolu dafa créer li tubaab di wax un une levée de bouclier maanaam dañu gis ne côté yu ne mu ngi am ay ay ay ay réaction man nag ma jàpp ne annonce bi nga xamante ne nii Macky Sall def na ko dafa tombé ci moment boo xamante ne nii euh, véritablement dafa yàqal lu bëri CEDEAO euh, te moo tax sax ma tuddee ko mag Macky piège la CEDEAO parce que soo seetloo daanaka le trois février bi président defee euh, sa sorti CEDEAO dafa njëkk a génne un communiqué ñu toogaat le sur surlendemain le 6 février loo xamante ni daawuñu ko gis CEDEAO di ko doxalee Euh, mu génnee un communiqué le 3 génnewaat beneen communiqué le 6 au la de ça ñu ne am na benn réunion d'urgence bu ñu convoqué te Sénégal dina bokk ci sujet yi ñuy waxtaanee euh, au la de ça également tey maa ngi dégg que euh, le président Tinubu bu Nigéria ñu ngi koy xaar fii au Sénégal donc loolu di wone ne quelque part li xew fii ci Sénégal am na lu mu représenté wala am na boog lu muy impacté ci doxunu euh, euh, CEDEAO euh, loolu li ko waral mooy que soo leen seetloo bu yàggul dara CEDEAO boobu dafa jël ay daan yu méttee méttee métti teg ko ci kaw d'abord Mali ensuite teg ko ci kaw Burkina Faso ba bi mujjee nii mu teg ko ci kaw Niger mm-hmm. te à chaque fois que CEDEAO di teg ay sanctions ci kaw dëkk yooyu ñuy wone ay ñuy woy ay ay ñi leen jiite ay putschistes dañu jàpp ne euh, sanction yooyu mooy mën a tax ñooñu nga xamante ni ñooy ay militaires ñu mën a organiser ay élections le plus rapidement possible pour céder le pouvoir parce que dañu jàpp ne euh, militaire warul ngànk nguur gi dañu jàpp ne ay civils à travers des élections ñoom ñoo war a euh, di succéder wu à la tête des pouvoirs Euh, bi nga xamante ne ni loolu am na ba euh, yàggul dara sax Mali bi nga xamante ne ni ñoom dañoo prévoiroon euh, hasard du calendrier élection présidentielle ci mois de février bi ñoom ñu dàq seeni élection loolu ba mu amee pays yu bëri dirigeants yu bëri jàpp ne c'est un véritable scandale commencé ci sunu président Macky Sall di expliquer comme quoi que élection yi dañu leen a waroon a tenir foofu ñu dem ba nga xamante ni Mali boobu euh, ñu pousser ko pour mu def ay élection euh, euh, tax na waa CEDEAO jël ay sanctions yu méttee méttee métti dem sax ba embargo ko te nga xam ne daanaka ci droit international dañuy tere ñu embargo dëkk boo xamante ni amul littoral maanaam féetewul ci géej gi mais malgré ça ñu gis ne CEDEAO teg na ay daan yu métti Mali teg ko Burkina teg ko bu yàggul dara Niger te nga seetlu ne Mali boobu ñu doon wax ne dafa war a organiser ay te ñàkk a organiser tax ñu gën leen a mere ba teg ci seen kaw ay sanctions mun nañu comprendre euh, argument yi nga xamante ne ni autorités yi tegoon nañ ko sur la euh, place parce que li ñu wax mooy mun nañu organiser une élection pendant que dëkk bi mu ngi en guerre. te man sax dem naa ba benn instant ma jàpp ne euh, CEDEAO bi nga xamante ne ni dañuy wax ne c'est la France qui est derrière elle. te ñu mën koo gis ci ay firnde yu bëree bëree bëri lu ñu bëggoon en définitive mooy euh, comment dire diviser benn yoon le Mali puisque bu nekkee ne dañu ne dañuy organiser élection présidentielle Mali période bi Assimi Goïta ak euh, les quatre autres colonels la di jël le pouvoir boobu euh, l'État malien contrôlé wul sax cinquante pour cent du territoire malien léegi su deen dañu organiser élection dans ces conditions la ñu fal président de la république boo xamante ni waa Bamako ñoo ko votel waa Sikasso waa Ségou pendance temps waa Gao waa Tombouctou ak waa Kidal participer wuñ ci processus électoral bi est-ce que bu boobaa malien yi dans leur globalité dinañu mën a wax ne président bii ñu falkat ñun ñoo ko fal puisque ñun ñëpp ñoo participer ci élection yi. ñu ñëpp xam nañ ne la question la réponse c'est non. bu nekkoon waa Bamako rek ñoo voté waa ki daal voté wuñu président bi ñuy fal waa ki daal mun nañu considérer que reconnaître luñ ko parce que bokkuñu ci processus bi ko daal di fal. Mhm. mais yemul tout simplement Mali Burkina Faso également on a dañu constaté la même chose maanaam près de 65 pour cent territoire Burkina Faso. état bi géré wu ko ay groupe terroriste ñoom ñoo fa nekkoon léegi ci dëkk boobu ana naka ngay ko euh, organiser ay élection comme nu ma ko waxee sànq ci Mali d'autant que yow leer na la ne état Mali occupé wul tout le territoire am na dëkk yoo xamante ne nii bu doon organiser élection bureau de vote du fa nekk donc ma jàpp ne euh, euh, pays yooyu nga xamante ni ñu ngi leen doon pousse pour véritablement ñu organiser ay élection te ñoom ñu tegoon sur la table des arguments yoo xamante nii xel mën na ko nangu ñooñu delloon pouse pour ñu organiser élection dafa am kenn ci ñoom koo xamante ni dañoo jàpp ne il est élu démocratiquement muy le président sortant Macky Sall. Mm-hmm. kooku nga xamante nii ci moom lañ doon xaar mu organiser ay élection yoo xamante ni du am benn coow mm-hmm. moom moo jékki-jékki dal di def comme ni militaires yi nga xamante ni ñoo nekk Mali nekk Burkina nekk Niger def mm-hmm. maanaam. Euh, xam nga ñële sax dinañ la ne pour des raisons sécuritaires. Mhm. mais fii on te dit que euh, comment dire annulé nañ élection yi pour des euh, raisons yoo xamante ni jusqu'à présent kenn mënu ko comprendre. crise de lañu invoqué moom. te soo seetloo li tax CEDEAO def pour man toute cette communication. Mm. c'est parce que seen premier communiqué bi dañoo passé complètement à côté. Mhm. Euh, euh, li tax ñu passé complètement à côté boo ko liiree. en en quelque sorte ñoom li président sortant bi def maanaam wax ne annulé na élection yi ñoom daanaka loolu waxuñu ci ñoom ci li ñu wax mooy li tax mu jël décision annuler élection yi te bu ñu demee ba ne circonstances yi tax président jël décision bu mu jël mel na ni ñoom décision boobu comprendre nañ ko parce que jàpp nañu ne raisons yi ko ci poussé c'est des raisons valables malheureusement comme ni ko sénégalais yépp mu nee comprendre amul benn raison valable boo xamante nii le président sortant bi muy def discours am teg na ko sur la euh, table pour wax ne lii kat moo ko war a moo moo ko taxa jël décision moom ak ñi mu àndal pour annuler élection yi il nous a parlé de ay soupçons yaakaar nañu ne foog nañu ne noonu la war a demee est-ce que demeewul noonu donc maanaam ay wax yoo xamante nii amul bopp amul genn ci loolu la sukkandiku pour ne annuler leen élection yi léegi nag bu nekkee ne CEDEAO te li gën a tey doy waar mooy eh, eh, balaa sax CEDEAO di génne communiqué boobu dañoo gis eh, Umaru Sissoko Embaló ah. daal di def benn tweet di féliciter Macky Sall mais dans tous les cas xam nga moom ci boppam def na bu yàggul dara ab coup d'état ce que xëy na contexte bi moo taxoon Euh, daanaka nit ñi débat wuñ ci débat <laughs> yu am doole yooyu mais bu ñu demee ba nga xamante ni ci constitution Guinée Bissau dañu bind ne comme fii au Sénégal bu dee da nga fal assemblée nationale assemblée boobu mënoo koo dissoudre tant que matul un an moom mu dem élection législative ñu sentir que ne opposition bi dafa gagné avec une majorité écrasante ñu dem ba quelque ñu dem après élection yooyu quelque mois. mu ne dissoudre na assemblée nationale boobu lu mu def mooy jéggi constitution bi nga xamante ne ni moom moo fa nekk donc bu nekkee ne moom moomu moo ñëw di soutenir quelqu'un d'autre boo xamante ni dafa def la même chose nit ñi dañ koy comprendre mais est-ce que ñooñu mun nañ euh, est-ce que ñooñu buñ ko comprendre waa état alliance des états du Sahel dañ ko comprendre. Mm-hmm. parce que question bi foofu la nekk ñoom buñ bi nga xamante ne ni dem nañu ba bëgg a génn CEDEAO nga xam ne CEDEAO d'accordul ci décision boobu moom muy wut ay argument yu mu leen convaincre pour ñu toog ñu gisee ku bokk ci ñoom nga xamante ni dañ ko considérer comme un président démocratiquement élu di def comme les putschistes wala boog muy def comme euh, président de transition yooyu euh, mun nañu expliquer comme quoi que ne CEDEAO kat décision yi nga xamante ni mu ngi koy jël mu nekk ay daan yu métti di ko teg ci dëkk yële alors que bu Macky Sall defee la même chose daanaka waxuñu ci mooy quelque quelque part euh, deux pois deux mesures boo xamante ne nii tey tax na ba ñu bëri jàpp ne euh, waa AES malgré li ñu leen di wax pour ñu toog ñoom jàpp nañu ne euh, comment dire CEDEAO bi kat. dafa am ñoo xamante ne nii mën nañu def ci biir lu leen neex am ñeneen ñoo xamante ne nii duñu leen baal daanaka dara. Mhm. c'est important et puis da nga wax léegi waa AES ñoom it tamit depuis lors gis nañ seen taxawaay ginnaaw bi Macky Sall jëlee woon décision ni dafay puusandil euh, élection yi ñu wax am benn communiqué bi ñu ci def mais ni ki démb aussi gisaat nañ seen taxawaay ginnaaw ba Macky Sall waxee ni que Sénégal bu ñu moytandikuwul dina am benn force organisée yoo xamante ni dinañu mën a ñëw jël pouvoir bi te bu boobaa pouvoir opposition yëppay perte. di leen woowaat à la raison AES am benn communiqué buñ ci def. Euh, waaw xam nga euh, euh, Sénégal fi ñu toll nii mun nañu wax ne dafa nakk ci guuta. Mm-hmm. quelque part également mun nañu wax ne Sénégal. dafa nekk euh, jànq bi nekk ci koñ bi te daanaka ñëpp bëgg ko. Mm. parce que tey bu ñu demee ba nga xamante ni euh, boof xam nga ñun ñoo xamul suñu bopp moo tax mais ñeneen ñi nga xamante ni xam nañ ñun ñooy ñan. Ah, euh, aka ñu ñoo bëgg. Mm-hmm. donc loolu président di wax ba ci def allusion. lu mel ni coup d'état militaire am na ñeneen ñoo xamante ni suñu ko déggee dañuy am lu bëri lu mu leen yëngal. Mm-hmm. Euh, puisque dañu nekk ci contexte boo xamante ne nii maa ngi lay wax sànq associé à alliance des états du Sahel. Mm-hmm. nga xam ne ay pays yu euh, euh, regroupé wu dal di changer daanaka seen doctrine politique. Mm-hmm. parce que dañu seetlu que daanaka pays Afrique de l'Ouest yi. Euh, surtout francophones yi dafa am benn influence bu méttee métti boo xamante ni France mu ngi koy exercer si ni ñuy doxalee seen état euh, ñu dem ba jàpp ne tey jii nii kat bu nekkee AES boobu ñoom ñu ngi ne dañuy génn CEDEAO ba pare kii nga xamante ni moom la ñu jàpp comme seen allié. Mhm. nekkatul France mais russi la. donc au Sénégal bu ñu demee bay euh, euh, wax bay foowe waxu coup d'état mhm. mën nañu quelque part pousser reflexion boobu jàpp ne kat Russie moom mu ngi toog fu mu toog di xool ndax loolu ñuy wax bu nekkee suba ak gannaaw suba am na. ñi koy incarné est-ce que ñu leen favorable lay doon. Mhm. ñoo xamante ne ni très rapidement ak seen appui dinañu mën a dem bokk alliance des états du Sahel. wala day nekk benn prise de pouvoir boo xamante ni comme ça s'est passé au Gabon. Mhm. nga xam ne français yi ñoom ñooy yëngal seeni euh, lobby. Mhm. de sorte que euh, identifier nañ benn officier wala ku mu mënti doon. surtout bu nekkee ne Saint-Cyr la ñu ko formé nag mu gën a tee neex koo xamante ni xëy na ñoom dina mën a wéy ci seen waaw ñu fexe ba jottali ko le pouvoir nga xamante nii daanaka li ma doon tuddee sànq la doctrine politique. Mhm. loolu du changé dañuy continuer rek tout simplement nekk ci France Afrique bi mais c'est un couteau à double tranchant mhm. parce que xamuloo kii ñëw suba ban taxawaay lay am mën na nekk un pro boo xamante ni day jàpp ne ses alliés mooy ay Assimi Goïta ay Ibrahim Traoré mhm. mën na nekk également comme nu ma ko waxee cinq benn Oligui Nguema boo xamante ni day jàpp ne dafa war a continuer ak France mai dans tous les cas mu nekk un corde une corde sensible boo xamante ni man dama jàpp ne képp kuy autorité Sénégal waruloo koo fooye puisque comme nu ma ko waxee sànq Sénégal tey jii nii ñu bëri ñu ngi koy bàyyi xel di xaar mu am benn glissement bu ndaw. Mhm. pour tout simplement ñu récupérer ko. Mhm. mais on a j'ai entendu aussi dire que euh, tey jii bu fekkente ni moom le président yëkkati na kàddu yu ni mel est-ce que du forme de communication rek pour dire à l'opposition nekk leen nit dégg la leen parce que maa ngi leen di jam paaka bu leen dóor boo leen moytandikuwul keneen dina ñëw jël pistolet dóor leen te bu a metti <laughs> waaw xam nga man sax bëgguma def chronique un peu <laughs> mais. waaw dans tous les xam nga euh, euh, dafa am benn discours boo xamante ni dañ koy dégg souvent. Mm, ci ñi yor nguur gi ak ñi leen di supporter mm. comme quoi que Sénégal dafa nekk ci benn ceinture de feu boo xamante nii ñun dañu war a moytu balaa ñu dem balaa ñu yegg ci yenn dëkk yi fi ñu toll mm-hmm. te euh, boo seetloo sax am na un journaliste français buy expliquer comme quoi que bi mu waxtaanee ak euh, Macky Sall lu mu ko expliquer mooy que élection yi dañ ko annuler parce que suñu deful loon noonu pouvoir bi mun na daanu ci loxo salafis yi mm-hmm. les islamistes te xam nga loolu tamit boo nekk boo nekkee Mali wala nga nekk Burkina nga dégg euh, ñu ne Macky Sall moo ko wax da lay def un peu reetaan quoi mm-hmm. euh, puisque dëkk bu mel ne Mali daanaka pendant dix ans yoo xamante ni ñu ngi xeex ak ñi ñuy woowee salafis ak ñi ñuy woowee terroriste et cetera pendant ce temps amul ci dëkku CEDEAO yi dëkk bu mel ne Sénégal wala Guinée wala beneen dëkk bu mu munti doon bu jàpp ne puisque Mali mii nga xamante ne am nañu ak moom euh, frontière bu ñu demee ba ay terroriste attaqué ko mhm. xëy na mun nañu xalaat ne terroriste yooyu suñu euh, paree ci Mali si ñun la ñuy ñëw mhm. te donc balaa ñoo ñëw si ñun dinañu jàppale suffisamment le Mali pour mu am euh, moyen yu mu leen xeexee mhm. malheureusement dañu constater que dañu constater le contraire au lieu que ñu jàppale Mali boobu nga xamante ni da doon def face ak ay terroristes on a préféré seetaan Mali mais seetaanuñu ko tout simplement yem ci dañu dem ba benn instant boo xamante nii même Mali su bëggee jënd ay arme pour défendre CEDEAO day bokk ci communauté yi nga xamante ni dañuy def le tout ba Mali du am euh, euh, armement yooyu nga xamante ni dina ko mën a défendre pour man lii xew Mali di xew Burkina ça n'a rien à voir ak li nga xamante ni mun na xew Sénégal suba wala gannaaw suba parce que souvent eh, bu ñuy expliquer ñi nga xamante ne ni ñoom la ñu ne ñoom ñooy les indépendantistes yi nekk Mali. Mhm. c'est des Touaregs. peuple boobu xëy na mën nga leen a déceler dans la zone fi ñuy wax la zone des trois frontières fi nga xamante ni euh, Mali. Euh, Burkina Niger ñoo ko seq un laal ci Algérie mën nga wax ne c'est une communauté boo xamante ne nii euh, euh, ay Touareg lañ yàgg ci Sahel boobu de doon def ce que l'on appelle élevage pâturage nga xamante ne nii tout le long du fleuve Niger dañ fa yóbbu leurs bêtes mais ñooñu noonu. ana naka nga mën a xalaatee suba ak gannaaw suba ñu am loo xamante nii ñor na leen Sénégal intéressé na leen Sénégal ba ñëw fii ne dañuy jéem a occuper benn euh, un quelconque territoire. Mm-hmm. pour man euh, tout ça communication la rek pour jéem a euh, tiital. Euh, sénégalais yi pour leur faire comprendre que yenn mesures yi nga xamante nii ñu ngi koy jël te mu nekk des mesures contraignantes li tax ñu koy jël mooy tout simplement yokku kaaraange Sénégal puisque comme ni ngeen ko mënee seetlu dëkk yi ñu wër yëpp ay coow fa am alors que en réalité ça n'a absolument rien à voir. est-ce que tey euh, Mame am nga yaakaar ni euh, tey euh, visite Bola bu fii ci Sénégal dina tax ba le président Macky Sall reculer respecte calendrier électoral bi. no xam nga déjà Bola Tinubu moom dafi wax loo xamante ne nii daanaka kenn gisul le résultat parce que daanaka dañu ko fal à la tête du Nigéria un mois après rek. mu nekk le président en exercice donc mën nañu wax ne ba muy agsi à la tête de la CEDEAO dëkk bi ñu ko falee sax daanaka xamul woon euh, jë jëlul woon toutes les affaires en main bay wone ban yoon la CEDEAO war a jaar te loolu wone na ko dans la prise de décision yi nga xamante ni dañ si noter une très grande présipitation parce que euh, Niger mu ngi am coup d'état le 26 juillet mais trente 31 ñoom ñu réunion ci seen première réunion boobu non seulement jël nañu ay sanctions yu méttee méttee métti teg ko ci kaw Niger <laughs> déjà moom ci boppam dëkkam dafa couper électricité bi nga xamante ni doon nañ ko jox Niger te Nigéria 70 pour cent électricité Niger ñoom ñoo koy gérer bi nga xamante ni pare na ci sanction yooyu ñu yaakaar ne fa la ñuy yem ñu wax ne il est possible mu am une intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel te xam nga loolu moo gën a xorom lu sax ci affaire bi. Hmm. parce que rétablir l'ordre constitutionnel maanaam. constitution bi dañ koo jël tegee ko nële mais Sénégal tey soxla na ñu rétablir la constitution. Mm-hmm. mais pour dire tout simplement que Bola bu boobu xëy na nu mu déparé woon noonu. ak résultat yi nga xamante ni topp na ci dina tax tey ji nii mu gën a teey de sorte que balaa moo duggaat ci balaa moo engagé waat CEDEAO ci décision bu mag dina ci gën a waxtaan ak ñeneen yi dina tamit xool la faisabilité de sanction yooyu mu bëgg a jël teg ko mais dans tous les cas Sénégal moom nañu jàpp ne constitution bi tegee la nañ ko nële soxla nañ ku ko rétablir te bu ñu sanctionné tamit comme nu ñu defee Mali waxuma nag ñu embargo ñu <laughs> mais ñoom am nañu différentes façons de sanctionner dirigeants yi nga xamante ni dañoo jàpp ne dañoo wàcc yoon. te leneen li nga xamante ni moo ci gën a doy waar dëkk yooyu ñoom ñu ciblé bay teg ay sanctions yu métti ci seen kaw mais. dirigeants yi am nañu légitimité boo xamante ne ni daanaka ñii ñuy ne ils sont démocratiquement élus amuñu ko Mali bi euh, euh, euh, colonel yi jëlee le pouvoir on a vu que dans la foulée am na ay manifestation des millions de Maliens wàcce ci mbedd mi pour rafetlu coup d'état boobu. Mhm. loolu tey boo bëggoon a wax. Euh, quelqu'un boo xamante ni dañu ne il est démocratiquement élu ku mel ni saxu ay mbaalo wala nga wax aadama Barrow wala nga wax sax su président Macky Sall mi pour mu mobiliser fi un million de sénégalais teg dépensé wul un milliard c'est daanaka impossible. Mm, neexoon na lool. fi mu daanelee neex moom billaahi lu wér la wax en tout cas. ñu ko bi daf ñoo xoj. <laughs> Mame Birame euh, ñu leen di jaajëfal bu mm-hmm. baax a baax di la jaajëfal Mame Birame. jërëjëf di la jox euh, daje altine incha allah. la guerrière. oui di ko jox rendez vous semaine prochaine téléspectateur yi ñu leen di jox rendez vous demain yow itamit di la jaajëfal liggéey bi. incha allah si kattanu suñu borom. Mm-hmm. Amel jaajëfal naa la. le talentueux journaliste Rokhane Ndong maa ngi lay <laughs> jaajëfal bu baax a baax di leen jaajëfal également yenn ah, suñu